Thank <laughs> you.

ak démb yan kàddu la jël te cay li nga xam ne mooy mesure bi ñu waroon jël nañ déglu ji vidéo Ousmane Sonko.

waxumal nag assemblée nationale tey yàlla da leen jox réew mi en deux mille vingt quatre te moom waxul woon deux mille vingt voilà nee na Macky Sall moo gën a cuune moo gën a yokk dund bi ngeen déggaat ci deuxième vidéo une minute quarante huit na Sénégal moo gën a cher yi njëg ñi dëkk ci sous région bi tey ñu bëre sax Sénégal bii la ñuy jëndee suñu jëndee Sénégal suñu demee seen dëkk mooy gën a yomb waaye démb Ousmane Sonko dafa ci conseil interministériel. ne naam ñoom ñoo ne woon mën nañu wàññi dund bi waaye mënoogul nekk jamono ji ci diiru ñaari at la lu tax ci diiru ñaari kon Ousmane Sonko li mu doon gëmloo Sénégalais yi démb kon xamoon ni du dëkk nee naa leen les réalités de l' opposition sont très différentes des réalités du pouvoir Ousmane Sonko ba mu nekkee ci opposition bi da wax da doon xalaat rek di wax xamuloon lan mooy état xamul lan mooy pouvoir ndaxte démb ba ñu déggee ay kàddoom fii nga xamante ne mooy conseil interministériel bi sénégalais yu xalaatoon ni que tey jii danañu wàññi dund bi jàpp leen benn déclaration bi mën na nekk mën nañ ko def waaye mënagul nekk jamono jii kañ la mën a nekk mooy que ñu bañ a dépendre ci importation li ñuy dundee ci réew mi ñu bañ di ko jéggaani te loolu pour ñu mën ko def foog ñu tunk ci li nga xam ne mooy souveraineté nationale souveraineté nationale nag mooy lan mooy bay dundee. yar suñuy nag def suñuy élevage di ci am suñu meew di ci am suñu ceeb di ci am suñu ndax di defar suñu diwlin di bay suñu gerte teg ay usine Sénégal loolu nag yaakaar naa ni waxuma la fii ak deux ans waaye fii ak dix ans sax mënagul nekk kon donc li leen Ousmane Sonko promettre woon démb xam leen ni que tey mënul nekk ndaxte démb confirmé na ba mu xamee ni nag tey dafa waroon toog jàkkaarloog Sénégal yi ne mënul nekk je crois que kàddu yi la waroon wax démb Sénégalais yi suñ ko ciy fal ñu fal ko ci suñ ko tujul fal ñu fal ko ci ñi xam ne ni que dégg la jiital waaye mënuñu dëgg jiital lu safaanoog dëgg ba ñu fal ko tey mu ñuy ñëw di ñu làkk ay daadaa li ci am ba am ba tey lépp loo xamante ne promettroon nañ ko bi ñu egg au pouvoir amul dara luñ ci respecté jëm ci appel à candidature respecté wu ci dara jëm ci réduction de le train de vie respecté wu ci dara ndaxte mom ci bopam kin fat place la dem dekk ji ci xaalisu Sénégal alors que mënoon na dem tëddi kërëm fi nga xamante moy cité kër góor gi donc je crois que tay dafa am yo xamante tay sénégalais ñoo wara ubbil sen bop sen beut xolal sen bop xam na ni que politicien